jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen bégee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen kontaane di leen ñaanal jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm di ñaanal ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci ay jafe-jafe wala képp koo xamante yaa ngi lijjanti daa muta yàlla na ko yàlla sottil te may ñu jàmm bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii set si ki nga xamante ni mooy Jacob bale ñoo ngi fii tey ci taatu géej gi ah, di jël brise de bi ah di bronze waale tuuti noonu lañ koy waxee kaagu voilà di bronze waale balaa tout nag ma bàyyi ko mu nuyoo ah, li may wax chaque jour rek dafa fekk ngéem li ci digg kër gi jël ko ne xaa ma mottali yéene bi Jacob nuyu naa maa ngi lay fay di waaw di nuyuwaale waa monde entier à travers wasaare làmb waaw di nuyu sama jabar bu baax a baax baax di nuyu sama yaay di nuyu sama papa di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko gën a fu mu jóge waaw di ñaanal sama maam bu baax a baax tamit fu mu tëdd yàlla na ko gën a jóge ak mboolem jullit Jules Baldé Junior ñoom booyloo di nuyu Sénégal di nuyu monde entier di nuyu waa Maroc waa Turquie waa France waaw di nuyu ñëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Ngor Wakaam Yoof Bargny Tubaab Jalaaw yéen ba Kayaar waaw ba Tunda Jandeer tamit maa ngi nuyu ñëpp di nuyu lébu yëpp waaw. mbokk yi ma fàttali leen ko moo doon bëre ki nga xamante ni mooy Mbagnick Mbagnick Kaïré rek ca combat bu mag ba ba doxoon ñoom ñoo doon bëre spécial ba yàlla dogal na am na ci ndam euh, naka nga doon waajee combat waaw comme ni doon waajee combat rek entraînement suba ngoon guddeeg bëccëg rek di nuyu sama coach ak Codé. waaw jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm. mais ñu gis signature yi yu ci bàyyi duñ la gis ñëpp naan Jacob day daw Jacob nawul bëre Jacob nawul nangam lan la woon loolu ñàkk a ñëw signature yi. non day fekk ñu nekkoon si entraînement yi rek te yi dañ koy yëg ci bi ci jour bi la ñuy wax signature am na fi yooyu noonu xam rek yoo xamante ni déggoowuñu moom doo mën a ñëw rek dem waaw. dañuy bàyyi ba ci jour bi ñu am na fi waaw te boobu day fekk ñu nekk heure boobu day fekk ñu nekk si heure entraînement. loolu kese la woon mais nekkul làqutu nekkul dara. mais ñu gis la nga ñëw ci làmb ji xam naa kàggu sax dina ma ci daggal tuuti dóolal moo ko ci biir gaa yi gaa seetaan ko ñu gis la nga ñëw làmb ja taxaw bëgg a bëgg a bëgg a a dum ak mbañik lan la woon sa diggante ak moom dafa am xas-xas loo bu amoon sa diggante ak moom ba nga ne kii tey kutoo kut kut kut dama koy duma wala dama koy benn moment sax gis naa la ne na bi mu génnee bi nga ko dóoyee ba mu génn saaku yi nga ne ñëw bu ñëwee ne supporté bu ñëwee ma rey ko lan la woon. waaw na boobu lii la rek fëggu bi rek moo mooñ toppoon noonu waaw ak wax yu mu doon wax man xëy na combat bi bëggewuñu ko woon ni bëggoon nañ ko daan toog si kawam mais yàlla lu mu dogal kenn mënu si dara dañuy sant yàlla bu baax mënuñu yàllaa mën xëy boobu dañoo fëgg woon rek di si jégalu nag moom àccee ndax waaw fëggu moom baaxul loolu yàlla rek ko nag waa Pikine dañoo génn waaw waaw loolu tamit mu ngi ci waa Pikine seen mobilisation gis nañ ko waaw di gërëm sama xarit yi bu baax a baax ku ci mel ne ay Pape Sène ñoom Seydi Baye Niass ñoom Daouda Cheikh Baye Fall Omar dañ say jàpp daal ay Daabo Balde waaw gars yi dañ say jàpp baax a baax ay ñoom dool dañ say jàpp ñoo di waral lépp ñoo doon cotiser di def yoo xamante ni man après sax damaa jëm damaa jëlee kaw ma xam ne ñii ndam rek moo ma soxal si combat bi. mais ñu bari ñu bari nee nañ Jacob bi mu ko dooree am na moment yoo xamante ni dóor na ko ba mbañik nekkatu foon mënoon na koo jàpp daan ko mais euh, sa xel nekkul sax ci loolu instant boobu dóor ko mu daanu nga bëggoon lu waraloon loolu. waaw combat moom wax naa ko nee naa ko soxla ma si jàppante dama ko ko waxoon Lamine yaakaar naa jël na ma ma ne ko Lamine moom nee naa ma ne ko wax ko moom combat bi man soxla ma si jàppante lu mu si soxla soxla ma ko si su nekkee sampu rek bëre ba fajar ah. mais ñu si bari dañ ne woon euh, Mbagnick moom bu bu xeexee mooy am avantage bëre bi tamit yëpp moom lañ ko joxoon daal. xam na ñooñ dañoo xamul rek <laughs> dañoo xamul woon waaye ñu ma xam dëgg dëgg dëgg xam ne maa ngi Mbagnick sax du làmba ji. du làmb wallaahi ñu ma xam dëgg laa lay wax nii xam ne maa ngi Mbagnick du làmb man ñu may daan ba pat xooluñu sax Mbagnick na ma yàlla jégal sax si kàddu gi waaw. di sant jëf lan moo lan moo taxoon lan moo taxoon effectivement nga jël Mbagnick lan moo taxoon nga jël ko yaa ko bëggoon wala moom moo moom moo bëggoon a bëri ak yow. non man damaa jékki-jékki rek sama papa woo ma ne ma yaag ma ñu lañ bëgg a tëgg ma ne ko pare naa man maa ngi entraîné mooy loolu mu ne ma baax na lii la la fay man ko luñ ma fay man intéressé wu ma na combat bi taxaw rek moo ma intéressé ñoom ñoo bëggoon jàllale Mbagnick ja pour jaarale ko sama kaw te man maa gën a bëgg Mbagnick jàll. comprendre ma de ñoom ñoo bëggoon Mbagnick jàll yow nga bëggoon Mbagnick jàll. ñoom dañoo bëggoon. jàllale Manick sama kaw te man maa gënoon bëgg a jàll. man ba léegi comprendre ma leeralal ma wax. comme man man. maa gën a bëgg a yéeg ca kaw ka Manick. Ah, yow yaa gën a bëgg a dem. waaw ñoom dañoo bëggoon Manick jàll si man fekke man maa gën a bëgg Manick jàll nag su dekkee dem rek baax gën a bëgg Manick foofu. <laughs> moo tax daal nga téye ko noo ko tey dama lay mais la moo tax la moo tax bu Manick tegee tànk bëggoo mu mu mu mu ñëw ci digg géew bi chaque jour da nga koy pousser ci ci saako bi fu mu dem nga fatt angle boobu. non comme moom dañ ne dafa mën a song moo tax ma jiitalal ko tànk gos tegal ko ko heure bu songee dama koy téye soo seetloo heure bu songee dama koy te mais du bëgg ma téye ko su ma ko téyee rek day gaawantu rocceekuwaat. waaw mais comme gars yi dañ ñoo waxoon dañoo waroon bëre moom mañ moo bëggul bëre. ku xool la ji xam ne bëggul bëre su nekkoon dafa bëgg a bëre day ñëw pour jàpp sama ngemb ma jàpp ngembam. ma ñu suba bëggul waaw ñëpp gis na <laughs> dem na ba taxaw di jàpp ay ndigg ak sukk ak yu kenn xamul. muy noonu mais taw fii rek sant yàlla lépp. nga jógee ci am ci ndam après ñu gis la ndam li ñu ko amee neexul ak yooyu noonu. waaw wax dëgg fa ne yàlla wax naa ko ndam li moom bëggoon nañ kaa daan foofu lay gën a neexee mais dañuy sant yàlla xam ne yàlla moo ñu dogal te yàlla lu mu dogal moom du ñu xëccoog moom waaw. mais bi nga jógee ci loolu. boobaak léegi yàgg na man pour man sax yaa ngi noos di noël comme que jógee ci ndam yaa ngi noos xam nga yeew yenn mais ma ñëw sàllaa la fekk sax maa la génnee ne nañ dem ci boobu géej gi boobaa ak léegi yaa ngi yaa yaa ngi entraîné fi mu toll nii la moon na ci sa kanam waaw dinañ comme nu mu koy waxee rek ñu nekk si di kanam bëri na mais ñun daal ñu ngi si lu ñu war a ne waaw entraînement suba ak ngoon loolu la ñu sant sant ñuñu leneen liggéeyuñu defuñu dara dañoo bàyyi suñuy jàng ak lépp pour teral yaay pour teral ay waaw raq ak ñu waaw ñu bëri ñu si xaj rek ñoo xamante ne yàlla da leen tudd dañ leen war a teral dañ leen siy teral mu ngi noonu. mais instant bi xanaa di nga am ku la propose wala di nga am koo xamante ni moo ne sa xel. ah <laughs> proposé wu ñu ma kenn <laughs> kenn dee ko sama xel ñu ngi daal si lu ñu war a dee ñu ngi entraîné daal. mais dégg sànq nga ne génnaguloo foofu mais foofu amuloo fa adversaire. si am naa fa adversaire jéen a ngi fa. jéen man jéen kere. comme moom mu ngi doon xëccu ba may dóor mañik mu ngi doon bëgg dugg si géew bi. nañ ñëw rek boobu boobu boobu boobu deret moo commencé di sot rek. waaw mu ngi noonu nag am na deret yu nekkoon sama ginnaaw mais kenn fëkk si ñëw comme moom da doon fëkk bëgg a a ñëw rek na ñëw rek ñu samp jaajay. Euh, duma nga xeex nga rakk ji euh, deret ji sot mu ñëw bëgg a dugg ci biir géew yow bëgg daal mu ñëw ngeen ngeen leeral ko benn ñu leeral ko rek ku mun sa morom duma. wa est-ce que buñ la andiloon avance su avance su su jéen est-ce que est que waa kër gi dinañ ko nangoo jël. suñ ko jëlul déggoo li wax suñ ko jëlul man maa koy jël yóbbul ko sëñ Saliou addiya addiya sëñ Saliou laa koy def barki sëñ Saliou Mbacké su ma joxee suba avance jën ma jël ko jox ko sëñ Saliou Mbacke àddiya. mais mais nag mais nag Jacob Jacob est-ce que jën xawul sooy te ngaa xool xaw a wàccaa tuuti. waaw yàlla baax na <laughs> li si kanam rawul bët dañ def nànk rek tepp tepp rek incha allah. mais mais mais naka nga gisee làmb Modou Lo Ama Baldé naka nga gisee kaw seen signature ba yegul naka nga gisee boobu combat ak fu ngeen ci toll ci yi waa ñu ngi ci Ama xam na lu ko war ci combat ba mu jaral ko mu tukki. mais combat bi sooy na de. waaw 25 décembre lu ne xaaj na si te loolu moom xëy na <laughs> Modou Lo day gën a problème rek ndax Ama su tukkee moom xam na lu ko war dina entraîner lu ko war dina indi doole bu war di ko ñaanal ndam. mais mais mais Modou naka la amee problème Modou fi mu toll nii ànd waa Parcelles yëpp a ngi ci ginnaawam. Ama ñan la àndal waa Pikine ñëpp a ngi ci ginnaawam tamit loolu rek doy na di ko ñaanal ndam lu gaaw. mais combat bi ni ngeen ko bëggee yàgg topp Modou. combat bi lan la laaj ndax Ama dem na ba ne Modou su demoon ba màggat sax te bëriwuñu dina dina jël beekeem daan ko maanaam yàgg na rêvé loolu combat bi lan la laaj. doole képp amul leneen loo xam ne combat bi laaj na ko ndax su nekkee bëre Modou Lo dàqul Ama bëre su nekkee xeex dàq ko xeex doole kese la combat bi laaj amul leneen lu combat bi laaj Ama soo amee doole amul ku taxawal. Hmm. non non. nga ne bu demee tukki ñëw moom doole kenn waxatu. non kenn waxatu ko xam na lu ko yóbbu xam na ne gars yi bi lañ koy laajte te da ko war a indiwaat Pikine incha allahu rabi. loolu yomb de. xam naa moom dina xeex. xeex moom dina ci am moom xeex moom dina ci am. comme li ma wax Manick rek da ngay Modou Lo moom comme maag Manick la rek lu ma ko wax xeex moom mënu ñàkk si combat bi dañuy xeex ba naaw am ak Modou Lo boobu dañuy xeex ba génn télé loolu moom mënu ñàkk si combat bi. lan lan lan lan ngay wax ñi nga xamante ni ñooy bëggee Manick ak ñi nga xamante ni dañ laa bëgg lan nga leen di wax. waaw ñuy dama leen wax ñu jàpp mbër la. waaw Manick moom champion la wax dëgg. damaa dama damaa juum Jacob laa bëgg wax ñi ñi ñi nga xam ne dañuy bëggee Jacob waaw mais Manick sax dama war a wax ci moom. ndax waaw waaw àcc waaw champion la champion la te di ko jaanal tawféex. waaw ndax xam nga rek bëri nañ mais malgré ay mbokk leen yaay mag sam papa am na lu leen liyee mais sant yàlla rek. muy noon dañoo waroon bëri bëri nañ comme nu ma ko waxoon dañoo war a bëri bëri nañ jeex na jeex na dañuy xool leneen lu nekk seen kanam muy noonu waaw. soo amoon kàddu mujj lan nga ñuy wax ñu tàggatoo. waaw di ñaanaleel sama mbokk rek. Modja boroom yoof yàlla na ko yàlla may ndam set wicc ci kaw caat. ci barki Seydina Limaamu bi mu yaakaar waaw sama maam maa ngi koy ñaan mu kàttanal Modou Dia ba mu am ndam ci kaw caat ci barki am am na lamb ju métti waaw sant yàlla rek boo jël booy bamba jël lu muy entraîné instant yi est-ce am na mbër bu koy entraîné Sénégal mais caat pare na caat daa dem États-Unis ñu waajal Modou Dia fii kàtte la kàtte dekk fii waaw fii gars yi xam nañ kàtte muy noonu di ko ñaanal ndam rek di wax caat tamit na ñëw dëggal boppam comme mu jat nu ko waxee comme moom nu toogee di wax dañoo dëggal boppam doonu combat bu neex la waaye yàlla na yàlla mu may mu jat ndam ci barka alxuraan di nuyu sama jabar ak ay magam mareetu ñoom jeew faat koket Ayda Njaay ñoom ay Ayda Faye waaw ñoom ñëpp ay Sofia ñoom ñëpp daal di nuyu waa Touba Belel nag Touba Belel Puno ak Mbacke Bawol multi service Modou Fall di gërëm waa Maris di ko teg ci loxoy Lamine Balde waaw maa leen di nuyu bu baax di ko teg ci loxoy Lamine Balde di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw di sant sama jabar bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm moom tamit. sa ko mi daal nu jabar ji di ko jaajëfal dégg nga nee na ba doom <laughs> ku ci am soxla daal bu bëgg la moom foo toll dee ko dee ko sagal dee ko gërëm ah ndax euh, nekk ak yombul nekk ak yombul waaye di leen jaajëfal di leen jox dig daje tàgg kontaan naa ci yow tey moom yaa ma sañ ñii nga ma def tey kontaan naa ci yow bu baax a baax di leen jox di waaw di gërëm sama papa Zil tawit aw ma fayam moom moom maa ko gën a lu mu mën a am aw ma fayam di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla yokk ay fanam rek ba mu mën a fekkee lépp ci barke Alxuraan di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko gën a fu mu jógee tamit waaw di ko sant bu baax. jaa ngeen jëf di leen jox dig daje ba beneen yoon ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.